asalaamaaleykum ñëpp di ñu seetaan maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyo bi Sey Latir PDG Thiès Info ak équipe bi mu àndal yépp ñu dalal ñu tey di nuyu sama collègue yépp nekk membre di réseau des enseignants de la l'APR di nuyu waa Thiès di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp di ñu seetaan man nag euh, maa ngi tudd Mati Senghor Bey ñu may madame Sow Nek coordonnatrice du réseau des enseignants de la paire de Thiès est en même temps présidente d'un mouvement national de développement mouvement bi ANDE ANDE muy alliance nationale pour un développement endogène bu ñu profession comme ni ma wax réseau des enseignants man jangale kat la man ki dugg depuis 1997 donc man ki sama 21e année 4 ans yi njëkk yi man ko servir dans le département de Bambey précisément à Kersambakan. Sambakan 17 ans yi dess man koy servir fi à l'école élémentaire de Darussalam. Salam 1. ñu ñëw nak réseau des enseignants de la paire. réseau des enseignants structure c'est une structure légale du parti président de la république comme nous avons la structure des cadres la structure des femmes la structure des jeunes au niveau de Thiès pièce, ma ngi la section de Thiès fi nous ñun lutax ñu dugg ci réseau des enseignants parce que gis nañ président de la république vision avons ci ñom ñu xamné ñun ñëpp partition buñ ci jouer pour ñu atteindre l'émergence comme nous l'avons ko Moi, motax nak décidé ñu décider ñeu jappalé ko. te suñu cadre naturel réseau des enseignants la moo tax ñun ñi ngi adhéré depuis 2012 boobu ba léegi nag ñu ngi ciy def ay jéego di liggéey ba toll fii ñu toll tey réseau des enseignants de la l'APR de Thiès yaakaar naa ne réseau ñi bokk na ci yi gën a dynamique ci Sénégal bu fekkee ne nekkul ne mooy bi gën a dynamique loolu lu ko indi parce que am na ay góor ak jigéen yu nekk ay jàngalekat ñoo xam ne dañoo engagé Déterminé pour appuyer la vision du président de la République Lolo chaque année dañuy def un planning d'activité pour prévoir ay activités yo le côté éducation la prévoir ay activités yo le côté politique la ndax aussi bala ñoo politiques ay politique aussi ay kat lañ motax souvent dinañ gis fi à Thiès ñuy organiser ay de révision philosophique pour accompagner les candidats au baccalauréat d'ailleurs cette année on compte sax élargir ko gën ko yaatal ci xale yi def BFEM ak ci xale yi def CFE su ko defee dinañ mën a accompagner xale yi relever le taux de réussite aux différents examens bu dee côté politique aussi ku wax politique wax massification moo tax ci réseau bi néguñu ba élection des at wala ay weer ñuy door a dugg sur le terrain depuis 2012 ba léegi ñoo ngi def massification horizontale mooy massification boo xam ne dañuy fexe réseau bi enseignants yi ki nekk yokk ba pare de 2012 à 2016 fexe nañ ba yóbbu réseau bi mu am 235 membres yoo enseignants lañ récemment samedi passé gis nañ ñu def rentrée politique de 60 enseignants dans le dans le parti par le biais du réseau des enseignants donc léegi suñu lim ëpp na 300 enseignants yoo ñu ngi ci parce que dañoo xam enseignant nan la ba ci doxal aussi ba président côté politique ak proximité ak population a massifié d'abord côté enseignant ñu massifié aussi ñu ne parce que enseignant bi comme population instauré concept un enseignant un comité un enseignant en comité boobu nag euh, nekkul ne enseignant bi day dañu exiger ñëpp ñu am en comité de cent am na ñoo xam ne xëy na quartier yi ñu dëkk dajale cent du yomb moo tax dañ ko fixé ci minimum vingt cinq ndax koo xam ne xëy na quartier bi lu mu ñàkk a lu mu jafe-jafe dajale soo woowee sa waa kër woo ñi nga xaw a dendeel rek xëy na di nga am vingt cinq suñ tàmbalee xëy na vingt cinq yooyu mën naa dem ba jur cent amna yit ñoo a ne ci quartier populaire yi am ci ñu am comité 100 yu mat sëkk amna ci réseau bi ñoo xam amna comité yu 100 donc côté massification depuis 2012 ñoo ngi ciy liggéey te côté bobu aussi amna nañ lu mat 120 enseignants yo xam effectivement ñoo monté comité le reste nak monté guñu mais dinañ leen accompagner petit à petit ba nga xam ku ci nekk di nga am comité nekk responsable ci sa koñ donc côté massification nous dañuy jappalé le président de la république côté aussi vulgarisation animation du parti aussi nous qui jouer suñu rôle euh, on compte commencé won nañ ko mais amna lutax arrêté ñu arrêté won eggul dal mais ci suñu feuille de route dans le mois de mars dinañ commencé dem ci koñ animer parti parce que kat président yaakaar naa ne am na ay réalisation yi mu fi def yoo xam ne war nañu mën dem animer parti bi échanger ceeg nit ñi wax ak donc daal kon réseau des enseignants de Thiès ci côté éducation ñi ngi accompagner élèves côté politique aussi ñi ngi massifier parti bi ñi ngi animer parti bi à Thiès. réseau des enseignants nag euh, ñun nu ñuy doxalee Thiès mooy amuñu féete parce que comme ñun structure lañ di parti ànd ñoo Masamba. And ça ne veut pas dire que collab bëgguñu collaborer ak mais fétélé wuñ suñu bop kenn donc ñun lañuy andal parce que parti bi lañ fi nekkal bokkuñu ci sensibilité donc nous nak tous les lañ jox suñu loxo pour collaborer ak ñom liggéey te ku ci nekk foo xam xalaat nga soxla enseignant rôle bañ te jouer ñu jouer donc réseau des enseignants daal Thiès ñi ngi à la disposition du parti li len ñor moy liggéey jappalé système éducatif bi le président de la république ba mu eggale ay projet pour le Sénégal ci dynamique bobu lañ nekk. Ah, am na lu constaté nag fan yi ak grève yi situation bu existé la parce que syndicat yi ak gouvernement bi on sent que euh, affaire yi xawna jaxaso dal mais il dañuy lancer appel ñaari parti que mu gouvernement que mu nekk syndicat yi ku nekk na de dépassement pour préserver un intérêt général un intérêt général mooy élève parce que gouvernement bi war na mën a def sacrifice syndicat yi aussi def sacrifice pour que xale bi jot ci limu wara jot jot formation bi mu wara am ba nga xamne bu ëllëgé day bokk ci ñinga xamne ñoy mëna té Sénégal parce que kat am na nu mi démé day melni ñun ñëpp ñoo ngi sacrifier xalé yi te est ce que li ñi chercher euh, jar na li ñi sacrifier motax ma ngi ñaan gouvernement bi accord yiñ signé ak enseignants yi luñ ci mëna def nañ ko ci def enseignants yi aussi malen di ñaan lepp luñ mëna muñal gouvernement bi nañ ko ko muñal te japp ci lim leen jox Nous ñu sauver comme ni parce que bi trop ndax bu il faut que nous reconnaître que suñu système aussi euh, problème bi lu ko régime bi passé parce que avant enseignants yi nañ doon nañ examen professionnel ak euh, rythme boo xam dina enveloppe financière bu ko gérer mais le régime bi jiitu am ay engagement yu enseignant pour am un examen te ku am sa examen nag da ngay laaj la ca topp donc laaj droit la mais am na ci erreur yu bëri yoo engagement prédécesseur du président Macky Sall Mais comme il y a la continuité de l'État, de l'administration, donc il est de son devoir même aussi de respecter parce qu'il y a la continuité de l'État, mais il a un ce yi comprendre ko ñu baña bayyi ba situation bi gëna détérioré wu ñuy door intervenir parce que année scolaire bi dal nañ fexe ba sauver ko kat yi liggéey té yaakaar naa ne nag loolu yëpp débat moo ci war a jiitu parce que problème bu mës am autour d'une table lañ koy réglé donc pourquoi pas problème enseignant yi nañ ko teg sur la table jël ko au sérieux ku ci nekk bañ a jiital intérêt personnel am ñu jiital intérêt général te yaakaar naa ne loolu bu ko defee dinañ am solution pour la situation de l'APR à Thiès Fofu damay wax ni peut-être APR Thiès fi ku ci nek yaa ngi liggéey nit ñaa ngi liggéey parce que comme ñun ñogi ngi liggéey rek dañu japp na ñeneen nit ku nek ñogi ngi liggéey mais xeyna amna lo xamné euh buñ ko jubbanti woon mu gëna a baax daal mooy ñu wut ko coordonné parce que kat buñu ñu xeyna xëy na li ñuy liggéey dina upp efficacité motax dal daal yaakaar naa ne coordonnateur Thiès soxla na ko foofu nag ñun biñu waxtane ci suñu biir xalaat ak expérience biñu am fi ties dañu gis ne dañu gis ne peut-être pour am ben coordonnateur au niveau de la ville dina xawa jafé motax ñun buñ doon def proposition dañu naan nañu wutal chaque zone chaque commune nañ ko wutal coordonnateur parce que comme au finish buñu démé ba élection yi jege zone bu nek dañuy wut coordonnateur ku koy coordonner pourquoi pas ñu tànn ko déjà à présent donc yaakaar naa ne fi mu toll nii war nañoo mën a tànn kii coordonné zone est tànn kii coordonné zone ouest tànn kii coordonné zone nord su ko defee ka ñu tànn aussi mu xam ne moom sas nañ ko lañ ko sas mooy président da koo bootloo mu boot ñépp su boobaa mu woo allié yi woo ñi nga xam ne jeunes yi femmes yi enseignants yi ñëpp di yëngatu ci mouvance présidentielle mu dajale leen parce que kat yaakaar naa ne politique addition la yaakaar naa ne daal suñ ko defee par zone ci la coordination bi di gën a yomb que ñu jël ko di ko def au niveau de la ville jox kenn ne ko coordonner les trois zones ñun moom buñ doon proposé dañ naan chaque zone nañ ko wutal coordonnateur ndax foofu la efficacité di ëppee daal te comme au finish fa la ñuy mujjee ñu njëkkee fa su ko defee ku nekk aussi kiy coordonné zone bi mu oyof ci moom mu mu bañ aussi fàtte kenn parce que xëy na bu dee sa zone rek ngay coordonné déjà am na ñoo fa xam xam nga ña nga xam ne ñoo fay yëngatu di nga mën a dajale ñépp moo tax daal côté boobu ñoo ngi wax naan bu ñu président déggee Thiès coordination bi na ko def par zone ku nekk dajale say zone sa waa zone ngeen commencé liggéey ñu jëm 2019 déjà ñun ci suñu réseau commencé nañ di liggéey ci côté bobu document bo xam xamna su paré dinañ ko djébal président won ko ñun nan lañ xalaté né buñ ko défé dinañ gagner élection yi parce que yaakaar naa ne bu ñu démarche pyramidale commencé ko ci quartier yi yéeg ndànk dem ci commune bi même buñuy ñuy wat au niveau de la ville fekk def nañ préalable bobu ci lay gën a efficace que ñu xëy rek jógee ci sommet bi di wàcc moo ñun dans notre organisation interne nous allons faire de telle sorte que dans chaque quartier dinañ organiser les enseignants qui sont là-bas wutal leen un coordonnateur au niveau du quartier dans chaque commune aussi ñu coordonner les enseignants am koo xam ne mooy nekk répondant bi foofu parce que yaakaar naa ne daal lu ñu gën a jege population bi coordination bi di gën a yomb daal dañuy saluer président effort yi mu def yëpp Thiès parce que gis nañ fi KMS 3 gis nañ fi aéroport bi gis nañ fi ISEP te loolu yëpp Thiès la donc li may ñaan nag mooy aussi ci projet yooyu nañ ci gën a suuraale doomu Thiès yi parce que bu aéroport bi nekkee Thiès te doomu Thiès liggéeyuñu ci du amal njariñ trop ties donc maa ngi ñaan ci personnel bi nga xam ne ñoo war a liggéey ci entreprise yooyu nañu privilégier jeune ties yi nañu privilégier femme ties yi parce que soxla nañ ko Thiès waa liggéey rek la xam mais xëy na souvent euh, ban porte ngay frappé ba am liggéey bi mooy xaw a jafe daal mais ku leen won yoon ñu dem donc comme yàlla euh, jublul na président ba projet yooyu yëpp mu indil ko waa Thiès kon li ci des mooy na ci Thiès gis seen bopp nañ ci boole doomu Thiès yi donc man suma ma doon wax luma gëna bëgg moy peut-être jang lay wax parce que étant jeune jang rek la amone lu may def boolewuma ko ak lenen lolu mo indi bima amé bac baccalauréat série D en 1993 dem université Cheikh Anta Diop def fa deux ans après ma génn def formation agriculture bi nek école formation d'agriculture bi nek Casamance ci la fa jógee doora def FI William Ponti Kolda ñëw di choses. mais ñàkk a doyal ci jàng mo waral ça fait ay 4 ans dama dem réinscrire à université ba actuellement ni amna licence 3 en droit di préparer master bi donc fofu aussi dama fi exhorter ñep enseignants yi ñu xamné nek enseignant téréwul jàngi mm-hmm. donc euh, ku nek bo duggé ci enseignement bi mën nga continuer sa jàng ndax jàng loo jàng diplôme boo ci am doo ko perdre donc maa ngi exhorter jàngalekat yi di exhorter élèves yi ku ci nekk jàng bi nga nekk nga jox ko la mu war ndax soo ko joxee bu ëllëgee dina la ko delloo. je suis mariée mère de quatre enfants am naa ñeenti doom ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigéen. bu may wax euh, li ma gën a neex Thiès mooy ci diir yi paase rek am na benn collectif des femmes bu ñu fi tegoon ba nga xam ne ci élection législative yi. ñu investiroon euh, ci liste Benno Bokk Yaakaar ñu defoon fi benn journée de prière boo xam ne permanence départementale ba ne dañuy ñaan pour ñu gagner législative yi vraiment période boobu amoon naa lu ma neex trop parce que gisoon naa ne femmes yi bokk ci mouvance présidentielle yépp booloo nañ di ñaan pour que ñi ñu tànn ñu jàll ma gis ne lii kat wax dëgg yàlla suñ ko defoon continuer ko dina nekk loo xam ne lu ñu bëgg ci suñu parti bi dinañ ko am daal donc vraiment lolou mom luma gëna neex la ci sama euh, cursus politique à Thiès sumay wax luma gëna metti Thiès ma fatali ko c'est vers les années euh, 88 bobu j'avais 15 16 ans moy temps où événement nari ñu gis nuñ doon jacaser de nari am ci ñoo xamne ñun xamone nañ leen ñu gis affaire yi ni mu demee daal loolu moom vraiment lu ma metti woon la ñu ma xam ci ne aussi jàmm daal moo gën lépp daal parce que metti woon na ci ñaari côté yépp lu ma gën a metti Thiès ma dund ko loolu la. sañoon Thiessois yi ñu gën a joxante seen xol parce que Thiessois bu am initiative teg dara lu baax nañ jàpp ne lii pour Thiès la ku nekk jël ko def ko yëfam mais pas ku teg dara. ñeneen ñi ñëw di xool nuñ lay faxastal faxastal baaxul ku nekk jàppal sa moroom comme sa bopp su ko defee la nga mënul keneen mën ko pour euh, Thiès jëm ci kanam maa ngi remercier ñëpp di leen exhorter waat une fois encore à l'unité surtout l'unité des cœurs parce que yaakaar naa ne Thiès rëyul ñoo bokk suñu Thiès ñi ñu ci bokkal mouvance aussi nañu jàpp ne ku ci nekk

ak bulletin bu tax ñu indi diw tax ñu indi ko donc bulletin yépp lu ñu ciy ñor mooy ñu voteel président de la république kon ñun ñëpp nga xam ne ñu ngi ci mouvance bi nañu bokk ndey bokk baay pour que ñu gën a am efficacité parce que kat complémentarité la ñu war a nekkee ku nekk li nga mënul sa morom complété ko mais waruñoo mën a bokk parti kenn di ci nekk sa noonu moroom donc foofu daal maa ngi ñaan nit ñi ñu ñëw à une plus grande prise de conscience xam ne daal fi ñu jëm nii enjeu bi rëy na te temps bi li ci des bariwul ku ci nekk looy def mu nekk lu efficace mais pas looy def aussi pour se faire voir parce que fii Thiès constaté nañ ne à chaque fois bu ñu wootee pancarte yi bari na torop mana a mani gi bari na torop surtout ci ville bi mais bu ñu demee ñu ñuy donc nañ xoolaat suñu bopp nag xool lu tax ñu ñuy gagné mal bi ñu soigné ko à la racine